asalaamaaleykum waaw léegi nag xam naa tàccu yi neex na yooxu yi neex na mais bëgg naa ngeen déglu ma une minute li may wax mooy yàlla mooy yaakaar yàlla subhaanahu wa taala moo tudde boppam alkaafi xam nga alkaafi lan lay firi mooy yow mii musalaate xam nga alkaafi ñaata lay peese boo ko adadee cent onze ñetti cent onze mooy trois cent trente-trois millions yi ngeen dajalee li ma bëgg ngeen xam ko mooy lii ngeen di def nit mënu ko Ousmane Sonko mii mënut lii man mii mënuma ko lii procès yàlla la yàllaa ko yore kon amul tiit amul ragal ñaareelu mbir mi ma bëgg ngeen xam ko mooy Benno Bokk Yaakaar déglu déglu ma déglu leen ma rek déglu leen ma non déglu ma rek déglu déglu déglu déglu déglu dañoo xool constitution Sénégal xam nañ ne seen président bii wërta bokk ci élection yi ñu dajaloo ne ko par force da ngay dem waaye ñun nag comme que ñun dénk réew mi ñoo mën a dajaloo ci ginnaaw benn nit ne ko par force di dem ñun sene Sénégal ñoo ne Ousmane Sonko par force doo dem leneen li nga xam ne dinaa ko jeexale lii nag ndigal la ndigal mooy yéen gën a xam ni amul lenn lu ñuy maye lu ñuy jël di ko may Ousmane Sonko kon xalaatu leen ñu jël noonu yee di ko may Sonko loolu moom yéen ñëpp xam ngeen ko mais léegi dossier bi yóbbu nañ ko chambre criminelle lii ma leen bi wax nag dama bëgg yéen ñëpp ngeen dégg chambre criminelle amul benn dossier bu fa mës a dugg mi. ñu atte ko ci at mi ñoom nee nañ politique bi nee nañ dossier euh, privé la seen yoon nekku ci kon nañ respecté procédure bi nga xam ne moom la chambre criminelle masa doxe saa bu ñu jàppee ab atte ci at mii ñuy 2023 suñ ko ci attee rek na ngeen xam ne bëgg a empêcher Ousmane Sonko mu nekk candidat moo ko tax a jóg waaw loolu nag loolu nag bu amee ma ne loolu nag bis bu ngeen déggee ñu ne fii ak élection yi jàpp nañ datu Ousmane Sonko di ko atte Macky Sall di nga xam ne réew mii ay sati Serigne Touba fi Ma Abdoulaye Niass fi ne réew mii sati Lat Dior fi ne réew mi siti njaajaan njaay fi ne réew mi jom jom ak fula ku ñàkk fit ku ñàkk jom du ci réew mi bis boo Sonko billaahi wallaahi tallaahi sa nguur day daanu su dina daanu jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye bu ko defee ñu jox kàddu gi rapidement lu mu wax dafa am lu mu tudd mooy lan